xayaakumullah saalih waaw bu dee li nga wax noonu ci wàllu coupe du monde bi rek c'est un peu compliqué ndax euh, léeg-léeg euh, da ngay minimiser un peu parce que buñ ko defoon ay caaxaan yoo xam ne dañ koo def def lépp à l'occidental dugal ci ay fo ay caaxaan fàtte lépp li nga xamante ne bi mooy seen culture fàtte côté islam bi Euh, assumé wuñ ci loolu dara dara dara dara pour neexal tubaab yi waa loolu doon na fi gën a metti doon na gën a naqari ci xol ndax xaalis jullit ñi jël yàqate ko ci loolu ba pare du nekk lu am benn njëriñ au contraire ci ay caaxaan lay yóbbu yàqaat sax seen réew waaw léegi nag euh, bu fekkente ni malgré que organisé nañ coupe du monde bi li gënoon yow li gënoon li nga doon li nga doon ñaan yàlla mooy ñu bañoon a dugg ci yooyu ndax caaxaan yeeg lam muy jur ci ay yàqu loolu moom moo waaye xam nga ni comme loolu mënul am léegi léeg nit l'islam da ngay boo dee denk dab daa yi da ngay réaliste ni ngay réaliste mooy li nga mënul am lépp dangay jéem a fexe li nga ci mën a am le maximum nga am ko ci voilà am na ci ñenn nit ñoo xamante ne bi mënoo am ci ñoom mbaax à cent pour cent parce que du seen mbir léegi ñooñu loo gën a am ci ñoom ci maximum de mbaax rek da nga ciy sant yàlla kon bu fekkente ni def nañ coupe du monde naam yëfi caaxaan la mais ñu ñu dugalaale ci message wu l'islam wanaa ci wanewaale ci nit ñi seen culture islamique am ci ay message yoo xam jàllale nañ ko pour wan nit ñi beneen image bu bokkul ak li nga xam ne moom la leen occidentaux yi defoon seen bopp yi ci eh, wane jullit yi ci image yu ñaaw yoo xamante ni daal ay terroriste lañ yoo xam ni amuñu jàmm dañuy reyaate dañuy lii léegi ñoom bu ñëwee seen dëkk ñu wan leen ne loolu nekkul dëgg jullit ay nit yu baax lañ ay nit yu yaatu lañ ay nit yu moderne lañ ay nit yu civilisé lañ ba loolu tax ñu naw leen ci loolu tax liñ jàppoon ci lislaam changé lolu xeyna mën na tax ne moo nek déclic ci ñenn bay tax ñu tup bu fekkente ni gor goru lañ ci lolu te gis na ne mel na ni lu leen yittel la ci mbir mi bu fekkente ni gor goru nañ ci lolu ala kulli hal lu baax la dañ koy dañ ci sante yàlla wala dañ ci sante yàlla mais à condition que mu nek ne lu wér ne lolu lu am la lu am la ne réellement ñi ngi daawaale ci suuf ñi ngi gor góorgóorlu waale di wan gaay image l'islam bu rafet pour xemmemmal leen l'islam lolu dèjà lu bax la voilà naam ay caaxaan la moo moom moom moo ko lal mais quand même au moins am na lu luñ ci dugal ci lu mbaax loo xamante ne dina jur njariñ yow daay bi nga xamante ne ab daay nga bu yëngatu ci xam-xam yow doo jëfandikoo moyen bu mel noonu mais xam nga nitu àdduna yi ñoom nga xamante ne affaire nguur lañ yor yooyu yaak ñoom bokkoo leen yaak ñoom bokkoo leen moo tax ñoom ci seen i caaxaan yooyu ñuy organiser buñ ci dugalee lu mel noonu ñoom da leen di da ngay sant yàlla ci loolu ndax nit ku nekk ak li nga mën a am ci moom nit ku nekk ak li nga xamante ni boo ko amee ci moom rek ne lii doy na ma voilà loolu moo tax kon ala kulli xaal euh, te loolu séntu woon naa ko parce que man xam naa naar yi surtout naaru golf bi xam naa ni lu ñu bon bon bon bon bon ak lu ñu doy waar doy waar doy waar l'islam day des ci ñoom ba léegi am na fu ñu teg l'islam te seen culture aussi tamit gëm nañ ko waaw pour rien au monde ñu bàyyi ko man loolu xam naa ko ci ñoom parce que def nekk naa fa xam naa ni moom l'islam moom mënuñu koo jël sànni ko complètement waaw seen lépp ça tourne autour de l'islam te boo dëkkee seen dëkk yi tuuti xam ko ak lu ñu saay saay saay saay waaw ak loo leen mën a waxal loolu moom mi ngi ci ñoom wax dëgg yàlla ba tax na dañ ciy sant yàlla dañ ci sant yàlla bu baax a baax ñaan yàlla rek mu jëm ci kanam parce que bu nekkoon lépp ay yëfi caaxaan kase kase kase kase moom doon na gën a metti ci xol euh, lenn rek nag moo xaw a sama xel mooy Morgan Freeman mi ma ci gis nga xamante ni moom li muy wax ci wàllu religion moom ay toj daanaka euh, ci ay religion mondiale lay wax religion unique lay wax parce que am na émission bu muy def National Geographic danaa ko suivre di ko xool muy wax ci wàllu yàlla ak lan mooy yàlla di jéem a wax daal benn la daal comme religion yëpp kenn ku nekk rek xëy na ak ni nga concevoir yàlla lan mooy Dieu mais daanaka ñoom ñëpp seen message benn la genre yooyu daal lay doon jéem a wax voilà te bi ma ko déggee tamit muy wax ci kiyam bi nii daanaka tamit discours bu mel noonu rek lay continuer di ko martelé voilà ci jéem a fexe jegante jéem a fexe benn yu mel noonu affaire yooyu voilà loolu daal moom moo ci xaw a xajam ci lu xaw a tey sama xel tuuti voilà ragal ñu dem rek xaw a accroché wu ci ñooñu nga xam ne dañuy woote di jëmale ci unification boo xam nañ koy unifié xëy na euh, li nga xam ne mooy religion yi loolu moom xaw na dangereux tuuti voilà euh, mais à part loolu bu fekkente ne gis nañ leen ñu def ay jéego yoo xam ne day wane ne dañu taxaw lislaam présenté ko ña fay ñëw ba ñooñu di gën a ñi ñii tuub dañ ci sant yàlla mais ñi tuubul tamit xëy na image bi ñu amoon ci lislaam lu bëri mën na cee changé loolu yëpp dañ ciy sant yàlla alhamdulilah dañ ciy wax donte nag journaliste yu ñu mel ne français yi moom ñu ngi ci di wax wax ju ñaaw lu ñu wax ko lu nañu wax ko surtout ak affaire euh, seen affaire kii LGBT yi ñoom nga xam ne loolu moom pour ñoom instant bi mooy le centre du monde la ñu wax tudd ko kenn ñemew koo laal yëpp bu ko jël force ko nit ñi imposé ko nit ñi fi mu nekk restriction yi ci Qatar def ni dana na méttee méttee métti mais loolu tamit bokk na ci liñ point yi nga xamante ne yu positif yi ñu leen war a santé war ci sant yàlla mooy la fekk tamit ñu assumer moo xam nga tamit alal boo ko yoree tamit doo neex yëpp euh, ma gars yi moom boo boolee ñàkk fayda ba pare misérable yoro dara dañ lay yëpp mais boo yoree alal moom noo ñu nangu ko voilà restriction yi ñu ci def nii lépp luy indi foofu affaire LGBT ak yooyu ñu daal ci teg seen tànk naj ko loolu tamit wax dëgg yàlla dañ koy encouragé bu baax a baax di ci sant yàlla yàlla baax na yàlla na yàlla doolu ñu defal tawfiq saalih barakallahu fikum wa ahsanu ilaykum